dañ leen di gën a ñaaxaar rek ñu xam ne réew mi ñun ñoo ko war a tabax l'avenir du Sénégal appartient à la jeunesse te ku bëgg sa ëllëg baax tey ngay liggéey ci ndaw ñi. donc président Macky nag am lu am solo loo xam ne nii jagleel na ko ndaw Sénégal liy jëm ci sport yëm jëm ci wàllu emploi lu mel ni programme xëy ndaw ñi ak yeneen programme donc yooyu aussi bu dee président da ko sumb jëmee ko ci ndaw ñi dañuy xam ne am na ci yéene le premier Ba moom mi nga xam ne aussi mooy candidat coalition Yaakaar ñëpp dégg nañ kàddu yu mu wax nee na mooy ndaw ñi. donc seen ndaw ñi seen xel war naa mën a dal ci li président jot ñu joxagum mais aussi ki nga xam ne ni moom la ñu joxoon muy le premier ministre Amadou Ba ñu ñaan yàlla mu jël réew mi au soir du 27 février 2024. moom aussi nee na ndaw ñi ñoo war a nekk sa ñoo war a nekk sa priorité donc xel mun na dal ci ndawu Sénégal. kon tey ni ñuy tàggatoo ak président de la république xol fedd na ci. waaw vraiment mu nekk tàggatoo boo xam ne ah, ñun ñëpp suñu xol neexul ndax fi mu ñu féetee. mais aussi li mu liggéeyal Sénégal mu nekk président boo xam ne dafa changé fondamentalement visage du Sénégal lépp mu yokk ko lu mu fekkoon benn yóbbu na ko fukk wala ñaar fukk loolu nag ñun tamit en tant que sénégalais ndax bu ñu nekkee ay ministre aussi ay sénégalais lañu ameel nañ ko ci cant ameel nañ ko ci ngërëm ndax président de la boo xam ne sagu Sénégal la tey foo dem ci àdduna bi dañuy tiitaroo Macky Sall ci Afrique tey mu am ay combat yu bëri yoo xam ne moom moo ko porté yàlla may ko ci ndam benn bi ci mujj mooy intégration Afrique ci sommet G20 ci G20 te loolu dafa nekk combat boo xam ne Afrique da ko yàgg a mënee tey yàlla sottale ko ci loxoom loolu nag bu amee dañuy xam ne président bi ñu yàlla dégg ci fukki at ñaar yi président bu spécial la ñu ñaanal ko sunu borom mu leeral li ci kanamam yëpp mu continuer service la Sénégal ci yeneen position mais aussi njaboot gi fi bàyyi yàlla teg ci loxo ba yéene yi mu amoon ci sénégale yëpp ñu mun ko mottali ñu nag message bi ñu délivré mu jëm ci ndaw yi jëm ci Sénégalais am réew dafa am solo solo goo xam ne nii ci loxoy wóor rek lañ ko a teg te loxo yu wóor mooy loxo yi nga xam ne nii am na xam-xam bi ñu laaj waaye aussi am na jikko bi waaye am expérience pour mën a diriger réew mi te loolu ñu xool yëpp di ko sàkku ci ay critères yàlla dogal na daje ci kim ñu joxoñ muy le premier ministre Amadou Ba ñu ñaan yàlla euh, réew mi tegu ci loxoom incha allah. Ah, jërëjëf monsieur le ministre. jërëjëf El ci déplacement bi ñëw ba fii. jërëjëf jërëjëf représenté le premier. jërëjëf jërëjëf représenté le président de la république. jërëjëf dinañ ko dégg encouragé yow tam sa liggéey. jërëjëf yàlla taxawu la jàppale la. amiin amiin Mbaye jërëjëf jërëjëf président yaakaar naa ni di nga am kaddu yow ci sànni ndaxte tey premier premier journée la ci atum 2024 lamb mel ni mu mel ne ndaw ñi vraiment wala réew mi ci boppam daal ñu bëgg lamb la. jërëjëf El Hadj Bekkay maa ngi dalal ñëpp jàmm di ñaan at mu bees bii ñu dugg nii nekk atum jàmm atum naataange yal na yàlla saxal jàmm ci Sénégal. amiin amiin amiin amiin première journée ci mel nii yi ci topp yëpp yàlla nañ dàq bi bu ñu naree ñaaw ñu mel ni bii boobu au moins ñu koy séntu ndax de 2024 am nañ ay promesse am na ay date fi nekk waaye nag ma rafetlu accompagnement parrain bi rafetlu également autorité ñu ngi ànd ak làmb di ko accompagner di ko jàppale. lamb ji mënul dem sans accompagnement mënul dem également sans parrainage yi ñuy def may gërëm ak lu lamb yëpp di wax mbëri nañ dem entraîné wu ñëw bëre lamb ji sàcc na yéen a koy wax combat yi promoteur a ngi dox également en tout cas gannaaw monsieur le ministre wax na ba noppi damay wax rek ne bisimilahi rahmaani rahim ci le premier janvier yi di ñaan sunu borom lii bañ fay gëj yàlla nay bëri yàlla na sax dëkk merci beaucoup merci président ñu ngi gërëm bu baax. waaw monsieur le ministre lay gërëm bu baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf encore une fois. ndeysaan Fadam sa waa jaa ngi noonu. wóor ngi nii. sa noonu Mansour Diop. ah yaakaar waaye buur waay lu am solo la. borom drapeau bi sant nañ bu baax a baax a baax buur. waaw. eh buur. <laughs> ah. buur da ngaa taxaw fee ma harcelé quoi buur nga am drapeau dafa jar ngay xulóog man waa tey na naa xulóo bàyyi naa xeex. dafa neex as. waaw te jërëjëf. waaw maa ngi lay sant. waaw ñaanal ndaxte dama naan lépp loo xam am naa ko eh, ci wàllu liggéey bi. buur buur xaaral. buur yaakaar naa ne di tuuti. wala bu la yow avant tous ñu bu na évacuer buur yow tamit. booy ñaa commencé na wala mi ngi commencé. yaa ngi amaat mbégte tey ci waa Caaroy Pikine ginnaaw raay parce que ñëpp ma gunge tey waaye di gërëm képp koo xamante ni tey jàppale nga ma ci bis bii tey boo xoolee délégation bi may indi mais Makan Mbengue nag nangul ma ko nangul ma ko lool ñi ñëw ñëpp àndandoo ak man dugg egg ci biir làmb ji loolu mooy wane ni Makan am na ñeneen ñu ko woon a def am na ñeneen ñoo xam ne woon nañ ko def mais Makan Mbengue moom la ko yàlla def parce que nag promoteur bu fi ñëpp nag laaw tout ñoom ñëpp ku fi jaar nekk xale ci sama loxo bii nga jaar ñoom ñëpp kon nag dontu nag bu ñu ba ci loolu nag dañuy santaat yàlla mais di gërëm nag ñoom asu saaxo mi nga xam ne jàppale ma mu ngi ci kaw waaye di gërëm Arona Dia di di gërëm képp koo xamante ni jàpp nga ci làmb ji ak misaan mi nga xamante ni moom moo ñaw lii ma sol di gërëm góorangom di gërëm sëñ Malick Amal bu ma commencé boobu ba léegi mu ngi ànd ak man di gërëm Awa Amal mi nga xam mooy directeur yi togg añ yi nga xamante ni tey jii topp na ko mais Astou maa ngi lay wax ni à part tey dinañ lancé rajo boo xamante nii pare nañ ci pour taxawal ko Thiaroye muy rajo communautaire boo xamante ni xale yi banlieue bi nañ ci liggéey loolu tey nit moo ñëw yëkkati som joxuñu ko pour ñu def ko ci waa Thiaroye maa ngi sant nag yow maa ngi lay sant di la gërëm bokkoo ci siisu maan yi am nañu siisu nag non non bàyyi noonu lamb du naqare pronostic waaw waaye mais Assane Baol waaye as am na lamb joo xam ne yaakaar naa ne ci liggéeyu ba tabaat yi la hmm. muy diggante Lagos ak Fils de Balla ah. ñu ngi nuyu maire bi nga xam mooy pare bi Ousmane Sakkal Dieng ah. nekk maire Sakkal nekk xam ne jërëjëf Sakkal yëpp dañ ko déggal ah. te mu ngi waaj délégation bu mag ànd ak waa Sakkal yëpp pour ñëw fi xam ne ni tey jii mooy arène nationale la 14 bi bi nga xam lañ jëm ñu ngi nuyu Ousmane Sakal Dieng bu baax ak Bakaay. jërëjëf kon mbokk yi li def mooy ñu dellu ci tuus mi ñu xool li nga xamante moom la booy ñaa indiwaale ci tuus bu ñu paree ñu dellu si waat dalal Assane Ndiaye grand promoteur Babacar ñu dem ñu xool tuusu booy ñaa waaw waaw ëpp bëri ëpp noonu ñaari mbër yi bis bu ku gaaw te xool doo gis bi de wallaay ndeysaan barki maam Cheikh hey booy ñang boo ko xoolee xoolee xoolee xoolee xool ñoom ñaar ñëpp am confiance noonu ko lambee ñoom ñaar ñëpp toll ak doon leer la la bu téye boobu day ñàkk mais c'est ça pour moi xeex bi xeex bi kon la xeex bi kon buntu la waaw amateur yi faral dëkk Yarax ñi dëkk Pikine ñi dëkk ah, Kédougou wax nañ ko bëgg Balla Gaye naanaan la kon Balla Gaye daa war a tere boppam ci làmb waaw waaw ko bëgg oh oh commando moo nekk na la ca kaw waaw moom moom fu mu nekk léegi commando bitim ah. Ah. jaar na fi waaw waaw jaar na fi jaar commando wallaay ndeysaan commando bëri na fi en bëri wu fekk maam njambaat commando commando bëri na fi ay combat daan wallaay ndeysaan ndeysaan ci Lac de Guiers 1 la daanoo ci xaas bekay Lac de Guiers 1 ci la daanoo yaakaar naa ni mën nañoo dellu si de waaw Assane ñu ngi lay nuyu xaas bekay jërëjëf maa lay nuyu way di sant yàlla bu baax julli yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur ah tey ci la bokk waaw wér di wax jërëjëf Serigne Salim maa lay nuyu la bokk Fadam Tour waaw di nuyu Cheikh Sarr sama xarit nuyu sama yaay nuyu sama soxna nuyu waa Bawol yëpp bégaay maa ngi pare bis bu mag le 21 janvier incha allah ayca ayca asat asat ñëw waa Assane yow la maa ngi pare benn bis bu mag le 21 janvier. waaw fii lay amee arène nationale. ñu def ci ay xale yu mag xale yu am mbooloo xale yu mën a bëree. BMW bu bawal borom 9 combats 9 victoires yi. ñu boole ko ak Petit doomu Poun bi. bu jógee Poun yëpp topp ko. ñu boole ci Ablaye Ndiaye doomu Robert. ak Maurice bu Medina. caatu montagne bu Faas ak Siteu bu Tëngéej. Baye Waly ak euh, étoile Jolof Kaaw Cissé ak góor gi étudiant ak juróomi combat yoo xam ne benn jour lay am incha allah lu jël bis bi nag tuddee ko sama xarit sama doomu ndey maître Pape Sène doomu ndondol bi maître Pape Sène nit ku baax moom lañ jël bis bi tuddee ko ko Asbégaye ñu ngi pare bis bi ak waa Bawol yëpp du nuyu nag képp koo xam ne doomu Bawol nga ñu ngi lay ziare di sàkku ñaan nag soxla nañ ñaan trop ndax lii ñu dugg metti na yàgg na ñu ngi sàkku ñaan ñëpp ñu ñaanal ñu yàlla suturaal ñu yàlla defal musal ñu si cat ak làmmeñ amiin mais pare bis ak lépp loo xam ne làmb la le 19 le 21 janvier le 21 janvier koy pare mais maa ngi nuyu waa Bawol di nuyu waa Bambey jërëjëf ay saw fi mu ne maa ngi koy bu baax di nuyu nag waa Touba surtout waa Yarwaay waa Njaageen maa ngi ziar ñëpp di leen bëggee incha allah rabi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf xarit. eh boy. yow am lampa ngi ni yow bàyyi sama teel. moo daan lës jàmm. grand grand xaaral kii ñëw nga ñëw. maam lamp moo daan lës jàmm mi ngi nii barki maam Cheikh. kaay leen waaw. waaw ñoom ñoo yore grand xaaral dafa tooy xaaral. wala tooyul xaar leen tuuti. yow booy yow noo tuddati sax. lamp lamp. ah yow yaa daan. maam lamp daan. mooy de avant yow yaa jël coupe Bourguewal. trophée Bourguewal waaw. waaw trophée waaw. waaw di sant yàlla bu baax a baax. di sant waa Parcelles Assainies Unité 26. wala ab tëyeel. di sant waa Parcelles Assainies Unité 26. waaw waa Cité waa Arlem.